Amis internautes et cinéastes de IGFM salam alaikum. c'est reparti dans votre numéro préféré action émission bi lay le lépp loo de ni cinéma la tey dañu nous seet si benn ndaanaan ci parce que dañ ko gisoon ci benn théâtre boo xamante marqué woon na sénégalais yu bëri ah, bu ci mel ni bu ci mel aussi fax man mais moom boy la woon moment boobu noonu après mu màgg nekk Billy après xolam mu Gabi affaire compliqué quoi mais aussi Ngagne Demba bi tamit batay suma nexé moko légui man dama koy laaj avion mo mo ci ban tour. mo wax Ngagne Demba wala Billy Boy wala Gabi. bo ci wax rek ah. ci wax suñu choix la euh, au devant de la scène donc euh, bañ euh, pseudo nit ñi ñu donc bo ci wax rek. Mankoba de son frère non ah. Mankoba original bi. Euh, mais ñu gën ko xam ci gab yi ñii gën ko xam ci Billy Boy ñi gën ko xam ci euh, ngañ Demba parce que Billy Boy ak ngañ Demba dinañ ci ñëwaat mais gabi bi aussi moy métier bi moy réalisation bi mu nekk di def c'est un réalisateur en même temps mais ci tour réal bi lañuy gëna a dégg gabi bi donc gabi ñu ngi lay nuyu maa leen di fay di leen nuyu yéen tamit di nuyu seen euh, followers yi seen inter euh, seen euh, internautes yi leen di suivre di nuyu spectateurs yi ak téléspectateurs yëpp GFM di leen di leen dalal. merci beaucoup ci accueil bi. Thié le Malien. waaye doo tegg sa derew. Billy Boy loolu daf ma marqué marqué sama ay morom marqué sama ay mag marqué ñu bëri mën nga ñëwaat ci ci ci ci théâtre boobu waaw théâtre boobu bon man déjà je dirais pas théâtre dama naan téléfilm la woon boo xamante <clears throat> man mii sama bopp man mii ko def la gën marqué parce que c'était on va dire euh, mes premiers pas dans le monde de l'audiovisuel yàlla dimbali ma may ma chance ma ma ma ma ci film bu mag bobu nonou bo xamanteni wax deug yalla ba tay ji ni euh nit ñi dañ may dañ may dañ may dogalé dima ma wax ci film bobu nonou nim leen marqué effet bi mu leen def euh, ak ñenn ñi peut-être amoon na apport positif bu mu ci par rapport ak seen évolution sociale xam nga ñenn peut-être découvert ngi trafic de drogue yi nous mu doon demee donc chance bi euh, téléfilm boobu amoon c'est qu'à l'époque il y avait qu'une seule télé donc euh, toutes les attentions étaient concentrées sur cette télé donc loo fa jàllale woon rek en tant que message dañ ko doon percevoir nit ñi dañ ko doon percevoir te loolu moo ci moo ci intéressant woon quoi c'est pas comme maintenant donc du coup euh, effectivement oui bi ñu ko defee ba pare ça m'a ça ça a contribué à, euh, à mon évolution professionnelle ci lu bari mo loolu moo nekkoon sama sama sama sama entame ci ci monde audiovisuel bi quoi donc marqué na ma bu baax a baax a baax a baax. marqué na la bu baax nga nekkoon ci acteur sa papa di suñu papa euh, tonton Boubacar Ba wala bu ñu neexee aussi ñu ne ko papa Boubacar Ba réaliser ko yow nga nek domam di ci jouer lolu la la def. lolu fierté la fierté la parce que un professionnel de sa trempe xam nga gis rôle bo xamanteni peut-être même si le rôle ne m'était pas destiné à la base mais ma def quelques tests pour euh, pour am rôle bi mu jall mu jël ma ci mom tamit attentes mu amone ci man yépp euh, ma répondre ci attente Non, noonu wax il a été fier de ma prestation mais moi aussi j'étais fier de travailler avec lui parce que c'était c'était la première fois que je mon petit ci plateau euh, de de tournage etc donc du coup euh, c'est une le une fierté la et puis challenge le sas cela parce que si bokkee ak pas papa liggéey nga nga dem un màgg def métier bi dans mom lepp lim fi defar yow bo ci yokkul dara ci lu bax waroo ko donc pour man euh, challenge bi foofu la nek ñew def au minimum au minimum lim fi def wala bok ma def lu ëpp mom lim fi def du yomb nak parce que ñom c'est les pionniers de l'audiovisuel au Sénégal parce que euh, généralement kenn du len dab ñi tabax ñi tabax fondement yi kenn du len kenn du len dab <coughs> donc du coup euh, ñun dañuy ñëw rek indi suñu participation ci évolution audiovisuelle sénégalaise bi donc du coup voilà quoi c'est c'est c'est un honneur c'est un honneur bu ma ci démé ba tay ji ni ñu ma ci ñu ma ci ragné wala ñu ma ci ma ci intéressé ay nit pour man lool nonu chance la ni ku nekk bu doon sa sagoot ci li ngay yëngu loolu ngay loolu ngay euh, dimbalé nit ñi ci loolu ngay euh, euh, say activités yépp autour de ça lay lay tourner donc tay ji ni ah ma ngi ci sante yalla bu baax. yalla na jëm kanam Billy Boy nekkoon benn boy bu sopp est-ce que personnage réellement la personne en tant que telle nous le mel. waaw nous le mêlons, nous le mel bon sauf dans un moindre degré parce que Sop bi tu ci curiosité de taï, mais bu euh, on était plus jeune euh, donc euh, voilà c'est normal il fallait que nous donnions sa enfance nous donnions sa jeunesse etc., sa adolescence plutôt on est devenu des adultes accomplis parce que y a ne ans pratiquement euh, ah. mais nous on fait partie de cette masse euh, euh, de jeunes nous le resterons éternellement parce que la jeunesse c'est dans la tête

mën nga nekk mën nga nekk seen papa sax xam nga wala waaw nga nekk seen nijaay mais ñu naan la mais mais Billy Boy da nga màgg léegi et cetera mais bon c'est c'est normal parce que ñoom xëy na peut-être moment de de la première diffusion de Billy Boy ñoom peut-être xëy na juddu wuñu ñu si bëri judduñu woon donc dañuy juddu màgg seetaan rediffusion bi dañuy yaakaar ni que c'était c'était à ce moment-là la génn quoi donc c'est ça le charme aussi de l'audiovisuel donc ça immortalise nos œuvres te tey jii nii yàlla bu dogaloon tey jii nii sax ma ma ma dee yàlla na yéex dina am benn. Euh, affaire bo xamanteni xeyna nit ñi dinañ mako xolé au delà de sama njabot bi nga xamanteni euh loolu la gëna am de plus cher au monde voilà. Billy Boy internet yi dañ ma laaj ñima ma ma laaj ani Cingaz ak Grand Kama. sax man am naa mbégte di leen présenté Cingaz. dembis man kam ak roi faxlan namee ko premier prince faxman loolu la ñuy feete tey. <laughs> Cingaz Cingaz euh, Cingaz bi ñuy gëj déggante malheureusement euh, gisante wuñu woon mais bi ma koy gëj dégg boobu Espagne la woon dama demoon Espagne alors mu déggoon ne ñëwoon naa foofu noonu ak Valence. on defena naa xamatuma woon sax ban deuk defena Barcelone la nekkoon xaw après mu woo mu fexé ba am sama contact mu woo ma mu ne ma dégg naa yaa Espagne mané ko waa maa ngi Valence mu ne ma bëggon na ñi gisé et tout ça mais yag na limay wax ni ça doit faire peut-être ay 2011 2000 waaw 2011 la wara a 2011 ah, donc euh, ci nga gej nañu gej nañu gisante torop gej nañu déggante torop tamit bon après ça man ça a été une expérience bo xamanteni xeyna ñu ci jouer ñu ci gëna bëri c'était pas des professionnels de l'audiovisuel donc d'où la magie de la réalisation et de la mise en scène. Donc les metteurs en scène, c'est des, des, des, des, génies. C'est des génies. Bob Tamid, bon, c'était l'œuvre de, de, mon père. Tu nga euh, te ci moom rare réalisateur yoo ils prennent quelqu'un koo xamante borom sax musul yaakaar ni dina mës taxaw ci kanamu télé réussir ay exploit moom mu ñëw jël la defar la def ci yow euh, tout ce qu'il faut talent nga ñëw voilà nga ñëw nga nga exprimer ko donc c'était impressionnant donc euh, l'ol moo on n'a pas gardé c'était on n'était pas une troupe donc c'était un casting spontané boo xamante on kii on venait de divers horizons ku nekk indi li nga kii ñu ci gën a bëri am na sax ñoo xamante ne xëy na ñu ngi ci ñu ngi leen di gis ci culture bi mais duñu imaginer ni ko ñoom la ku mel le danseur la Pape Moussa

voilà euh, il y a plein d'autres gens yo xamanteni justement fa xamane ñu groupe ballet la quoi groupe ballet euh, ñom pa Moussa ci ñom ñom ci euh, euh, Choker, moom la ñuy wax si je me souviens bien ak ñeneen ak ñeneen donc nous, c'était des artistes accomplis déjà donc tamit c'était euh, une une des premières expériences que nous avons dund ci audiovisuel à travers ce téléfilm la Faxaman. bon tu sais, biir wax léegi yaa ngi wax que ni réalisation bi mise en scène c'était magnifique mais tey dañu yow en tant que réalisateur dañu gis ni léegi. série ñuy tàmm di seetaan wala téléfilm ñuy tàmm di seetaan genre léegi gars yi du ñu musé wu trop ci direction artistique bi tey dañuy gis benn waa joo xamante ne nii am na tour mi ngi def la buzz ñu jël ko mun jouer benn jox ko benn rôle et tout tey détecté tuñu amatuñu réalisateur yoo xamante ni dañuy détecté ay talent wala dañuy gis benn nit mu am ay potentiel te nit ki xamu ko te yow en tant que réalisateur ban vision nga am ci loolu wala ban jàngat nga ci am. Euh, man bi bon déjà damay féliciter euh, toutes ces initiatives là parce que il fallait que nous am suñu industrie euh, audiovisuelle ou cinématographique cinématographie. Bob, ni consommer consommer consommer tout ce qui est télé c'est c'est vrai c'est bien il faut s'ouvrir mais d'abord ni prioriser suñu production locale c'est important man damay féliciter tout toutes les maisons de prod yi nga été ceux qui font de bonnes choses ou pas man je, le dis je n'ai pas de leçon à leur donner parce que ils existent professionnellement euh, en tout cas tu vois, réalisation film série etc. ils existent man je n'ai pas de leçon à donner parce que je n'existe pas encore dans ce domaine-là donc à amaguma à mon actif une série pour réaliser wala un film euh, de cinéma bo xamanteni réaliser réalisé donc euh mang leen ci féliciter bu baax a baax di xam di di leen wax di leen encourager et puis euh je suis fier de parce que ñu ngi créer ñu ngi créer ñu ngi ñu ngi créer emploi créer ben industrie boo xamante ni tey jii nii bu ba yenn yenn chaîne de télé yenn on va dire euh, il y a une puissance audiovisuelle qui est installée au Sénégal fini pour récupérer le marché je pense que c'est tout à leur honneur quoi donc euh, mais un aspect bi nit ki lu a tari daf ko pour euh, une meilleure maîtrise de ce qu'on fait mais aussi pour un meilleur rendu de ce qu'on fait xam nga euh, bu à un niveau nous ñu war nañu euh, maîtriser sur sujet Il faut que nous là c'est vraiment le langage technique qui parle c'est le langage audiovisuel qui parle si les détails yu mel noonu la professionnel amateur donc tu euh, nga évoluer di di tu buter tu vas buter parce que là, c'est le langage audiovisuel qui vient tout de suite euh, s'imposer. Euh, c'est l'audiovisuel ou le cinéma, c'est une façon d'être, c'est une façon de parler, c'est une façon de vivre cet art. Parce que moi, je voir le 7e art. Donc, beaucoup maîtriser le tout de suite. Donc du coup tu es marginalisé. donc producteur de ah, bon réalisateur amateur producteur du bu amateur du un film Hein, euh, scénariste ou un film fait tu n'es pas un bon scénariste euh, enfin tu n'es pas un bon producteur un scénariste professionnel du film ou sérieux donc je dis juste que c'est vrai même si par moment on, met souvent la charrue avant les bœufs je ne suis pas une référence hein, mais c'est c'est juste euh, un constat pas tout pas mais de temps en temps de mon c'est pas mal mais le plus important c'est euh, le plus important c'est d'aller à l'école de ce qu'on fait Moi, boo ci une nga am passion bi demal nga gëstu ko tey on a beaucoup d'outils pour euh, apprendre pour s'informer et cetera internet mu etc. et cetera il y a des tutos il y a des forums yooyu noonu yëpp nga ci jàng sans nga dem école sax mën nga ci jàng et puis avec l'expérience du plateau du terrain loolu tamit mën na la jàngal lu bari bari bari bari bari si tu as la chance de de de, de participer à des tournages de de longs métrages ay plateau de cinéma plateau de téléfilm et cetera yooyu noonu yëpp tamit dafay bokk ci ci jàngal comme man sama parcours lolou daf ci bokk donc man j'ai pratiqué tout de suite quoi madame, dem tout de suite sur le terrain may jankontel di mbëkkante di mbëkkante et puis j'ai eu la chance d'avoir de, de faire euh, de grands plateaux de cinéma j'ai eu la chance d'avoir participé à plein plein plein de séries yo xamanteni dawul fi sax quoi donc euh, am na lu ma revendiquer ci côté bobu quoi en termes d'expérience tu vois et puis il y tamit jàng naa ah, jàng tamit euh, euh, audiovisuel bi donc euh, voilà man bu peut-être suggestion may joxe rek par rapport à ça pour ceux qui n'ont pas été à l'école de ça ils n'ont qu'à s'y atteler ñu jéem ko def comme ça ñu gën a mën a yokk parce que s'installent et pour man ils doivent avoir assez d'arguments pour pouvoir faire face à la concurrence régionale voire internationale voilà c'est important léegi damay ñëw ci Iris Iris nekk structure boo structure familiale la euh, maison de prod de réaliser des clip de réaliser des spot publicitaire bon am na sax ñu ne Iris bàyyi nañ réaliser ay pub ay euh, clip autant pour moi est-ce que c'est vrai la. Euh, parce que audiovisuel ñun xeebuñu ci dara dañu peut-être wàññi rek parce que on a on a d'autres projets qui nous qui nous que nous sommes en train de développer en ce moment qui nous tiennent à cœur et puis ça c'était ça la finalité de RIS mais nous parce que les réalisations de clips euh, font partie de de l'audiovisuel de ce qui fait de ce qui fait marcher l'audiovisuel donc euh, loolu mënuñu ko mënuñu ko mënuñu ko bàyyi mënuñu bàyyi dara ci audiovisuel mais dañuy Wani en fait dañuy Wani réalisation yi euh, bu baax maintenant bon parmi les artistes qui veulent qui veulent tourner on a am ci ay xarit ñoo xamanteni ni ñu leen bañal dara. comme Carlou D hein. comme carlo carlo sama doomu nday la donc euh, euh mom buma fekkon 4h du matin sax yem pour ñu pour ñu liggéey dañuy dañuy liggéey y a pas de problème xam nga mais bon la plupart du temps amna ñu bari ñoo xamanteni dañuy ñëw solliciter ñu mais dañ leen di wax ni que instant yi nii dañu nekk ci ay ay projets et c'est vrai dañu nekk ci ay projets bëgg ñu dugg ci projet jàmbur ba paré yàq yàqal borom quoi donc euh, du coup on on on demande souvent aux gens de voilà ñu am nañ ñeneen gars yaa gars yaa ngi dóor ay vidéo yu nice gars yaa ngi dóor ay vidéo yu nice nice nice nice je pense que euh, ñun euh, ñu ngi explorer ay yeneen terrain ñu ngi jéem a xool yeneen expérience ñu ngi ah, ñu ngi ñu ngi expérimenter yeneen yeneen yeneen aspect audiovisuel bi parce que l'audiovisuel c'est vaste xam nga notamment la réalisation de films et de séries donc ñu ngi ci ñu ngi concocter projet yooyu noonu c'est c'est ñu ngi koy ñu ngi waaj a dérouler incha allah bientôt donc ci yoy lañ et bo ci ça prend énormément de temps parce qu'il faut fuir xam nga euh, série rek bu une maison de production nekkee bo xawul deuguer touti rek ci lolu rek nga alors qu'il y a énormément de choses à faire quoi parce que série c'est une machine qui tourne c'est une chaîne c'est une chaîne de production euh, il faut que ça voilà en passant par le l'écriture scénariale en passant par l'équipe de production en passant par par la réalisation l'équipe de post-production a noonu yëpp Hein, avec euh, l'équipe de promotion tout ça c'est une chaîne qu'il faut entretenir tu as du mal à assumer d'autres projets à maintenir, il faut beaucoup ci suñu suñu ligne de mire quoi mais euh, on est en train de nous doter les moyens qu'il faut pour pouvoir gérer plusieurs projets à la fois donc tu euh, es lañ tu es quoi Inch'Allah, à ce qui paraît Billy Boy da nga ko bëgg indiwaat tàngalaat non du Tangala c'est une suite waaw Boy suite euh, écriture c'est bon c'est bouclé La mon correction nous avons koy jox nañ professionnel pour nous corriger euh, scénario et euh, allah ni mën na effet comme premier bi numéro bi effet bi mu mais xamna ni bi dina dal inshallah exclusivité bi maan leen ko jox série euh, euh, téléfilm Billy booy dina ñawaat te ak ay innovation de taille ak yeneen facette ah ak yeneen affaire yu graaw mais dañ dañuy bës suñu baraam foofu noonu bon ñu gis temps yi dafa am benn actualité boo xamante ne acteur cinéma yëpp ñu ngi koy ñu ngi koy waxtaanee bon mu métti aussi ñëpp di ko naqardu ñu bëri di ko naqardu mooy benn chaîne YouTube bu tudd Maquette Colobane mm-hmm. dañu piraté Evan Prod, di mm. diffuser série euh, Idole épisode Idole yi di ko diffuser diffusé sa chaîne YouTube. ñu bari nak ñu koy nakarlu yow lan nga ci wax. Euh, man li ma wax moy c'est vrai neexul. neexul mais aujourd'hui je pense que tey avec euh, les outils qu'on a surtout sur YouTube il y a moyen d'arrêter ça tout de suite quoi tu vois, ils vont être professionnel. Nous, je pense qu'ils ont pris euh, les dispositions nécessaires pour pouvoir arrêter ça. YouTube, si nous piratons, si nous piratons, ou nous créons un contenu, bon, maintenant, il y a comme donc signaler, beaucoup signaler, après, il y a droits, gars, ils bloquent non, systématiquement. Donc, je pense que Taïdini finit le ni, et puis amna tolo l'info maintenant, ni qui ça bouge les contenu, du diffusé diffuser, il y a là sa monétisation, il y sa promotion, etc., etc. Bon, après c'est une question de droit et de principe xam nga euh, metti na ma metti na ma metti na ma parce que liggéey bi dafa metti donc euh, c'est trop facile kenn nekk euh, ci ruquwam xaar yow nga dem ñafe lijjanti ba ñëw teg benn produit sur la table xam nga di espérer voilà xalaat. benn scénario nu metti scénario nu tournage nu mu méttee xam nga nga ñëw keneen ñëw toog yeewu ëbbali ñëw rek jël xam nga commencé di ci lekk xaalisam loolu je pense que c'est du vol loolu moom ak sàcc amul différence c'est la forme qui change mais dans le fond ça ça là. donc euh, pour man ils sont au courant des, outils qui sont disponibles pour arrêter ça Nous avons ko YouTube et puis nous nous nous droits c'est tout. Uh-huh. bon nous avons actualité de la semaine. info de la semaine. Mm-hmm. le film euh, d'Ibril comme sa Toronto film bi Djibril la de Mamadou Lamine c'est un jeune réalisateur est sélectionné pour participer au World Film Fair qui aura lieu du 11 au 16 novembre 2019 à Los Angeles. Mm-hmm. Le film Un air de cork » de Angel Djaban s'est vu décerner le prix du meilleur court métrage africain 2019 par l'African Movie Academy Awards. Mm-hmm. tey Gissé, un jeune réalisateur. réalisateur di sous région mais aussi un peu partout dans le monde différents fa ravager plus, qu'est-ce que ça te fait. écoute man c'est une projection de mes ambitions. Man, je pense que c'est une projection de mes ambitions, que ce soit moi ou un autre jeune qui arrive à le faire, qui arrive à, aller au-delà de nos frontières pour présenter ses œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. Pour moi, c'est un accomplissement. Mais le chemin ne fait que commencer. Euh, la visibilité sur le plan international, c'est très important tu vois euh, dina rencontre à nit des producteurs il va échanger euh, euh, il va échanger avec des producteurs de grands producteurs c'est une opportunité et pour moi il faut la saisir parce que loolu nous nous tey suñu njariñ ku ko fi gis rêver comme le mot de di wax euh, borom naka. borom borom euh, borom borom boutique mbag bo gis magasin moo nek ci xol bi. borom boutique mbag bo gis magasin mo nek ci xol bi tey jii ñun ñun ñëpp tous les acteurs de l'audiovisuel ou du cinéma ko ci gis ambition moy mu def une œuvre bo xamanteni ce sera reconnu sur le plan international mais euh du yomb. man producteur wala réalisateur bo gis tamit festival de Cannes nek ci xol. mais c'est ça mais c'est ça té loolu day am inshallah parce que le le le l'audiovisuel. Euh, au Sénégal est en plein essor xam nga jeunes pas si ngi gën di audiovisuel je ne sais ngi koy Si a bëgg beaucoup, nit dara tu vas juste comprendre une chose faut que nga jàng ko donc voilà donc il y a plein de pépites là qui arrivent gars yi ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw et puis voilà ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ñëw dal ci kaw gars Inshallah, on va se faire notre industrie c'est vrai que suñu euh, démographie bi c'est pas aussi important que peut-être démo euh, population qui bi euh, nigériane bi ils ont une bonne industrie qui tourne bien qui marche bien mais Inch'Allah, nous, on est en train à l'image de maîtresse d'un homme marié on est en train de de, de, de, vendre nos produits audiovisuels au-delà des frontières sénégalaises. Et je pense que Maîtresse d'un homme marié, c'est le parfait exemple. Et il faut en prendre de la graine. Nous dire, euh, créer une expansion de nos, de nos, de nos produits. Euh, voilà. Maîtresse d'un homme marié, c'est une série qui euh, sous-région, mais côté consomme beaucoup. Ouais, ouais. Et de féliciter, aussi de féliciter Calista. La scénariste, vraiment, réussit nos scénarios. Calista, c'est ma sœur ma sama sama je suis je suis vraiment fier d'elle de je le lui ai dit et euh, elle sait que c'est sincère votre mot de la fin Écoutez, man, je vous remercie énormément d'avoir porté votre intérêt sur ma personne et que nous avons échangé échanger peut-être aussi interagir avec nous, mais di wax nit que inshallah li ñuy di ngeen lekk bu suur. Billy Boy bi ah ak wëndeelu. wëndeelu ak faxman bi yep ñu ngi ci bi ñu ngi ci bi ñu ngi togg. instant ban phase ngeen toll baral russi. bon instant yi nii ñu ngi ñu ngi ñu ngi russi mën nañu wax ñu ngi russi xam nga ñu ngi quoi instant donc merci beaucoup Gabi merci Sophie, un plaisir vraiment. merci à vous chers internautes de l'avoir suivi merci beaucoup chers Sarr mon cadreur bi ma l'émission. rendez-vous bientôt avec Benin invité dans Action.